sept minutes de vérité sept minutes de nga à ni C'est rek ko ak sur le canal 33 Leral TV 96.1 Leral FM canal 28 en Gambie Eutelsat 16A de Dakar à Madagascar ou sur les réseaux câblés Nenalen, Ayoubos leen Mandinafi indi Ben Ojo. tey Moi, jour J 3 Dem ci guerre des audios su ñu guerre des audios suñu xel day dem ci dossier bi nga xamante ni dox na ci diggante masseuse boobu di Pastef Ousmane Sonko ginnaw bi ay accusation dalee ci kaw ndondam ni dafa doon dem ci ben salon bi nga xamanteni massage érotique lañ fa doon def lu bokul ak massage faju massage thérapeutique fa la doon dem di séq ak ben xalé bu jigen noot ko terroriser ko ginnaw loolu nak xalé bu jigen bi bamu mu da ko porter plainte dossier bi nak mi ngi ci loxo yoon bi mu matee atu yàlla ak wèr tay yaakaar naa ni muy euh, décembre euh, mars 2021 ba avril 2022 atu yalla wèr tegu ci bobu ba tay fukki nit ak ñent ñàkkoon ci sen bakkan ñom wa Pastef ben xex xeex lañ jël muy manipulation manipuler askan bi pour setal sen waa nga xamanteni moy Ousmane Sonko te Ousmane Sonko ci bopam setalul bopam yalla biko sak sak sàkk ñun ñep setalu ndax ndaxte su ko naroon setal coow li du ex fi ci lañ utiliser ben guerre des audios dem ba nga xamanteni ni am na ay nit yu dugg en discussion ak Adji Sarr bëggoon ko jappalé dem ba ci biir foog na ni que jaar Pastef mo gëna a yomb pour am xaalis ndaxte képp koo xamante ni défendre nga Ousmane Sonko kenn du la saaga kenn du la xas dinañ la tàccu ci réseaux sociaux dem nañ sax ba gis ñen ñoo xamante xamante ni dañoo nekk en perte de vitesse pour dugguwaat amaat buzz nee nañu dañuy dugg ci langue politique bi alors que ñu ngi woon ci milieu culturel bi tey jii benn camp la ñu choisir mooy camp wu Pastef ndaxte xam nañu ñoom ñoo occupé réseaux sociaux yi saa yoo leen jàppalee rek da ngay am buzz donc système boobu sénégalais yi xam nañ ko ay yaakaar naan képp koo xamante ni bëgg nga am buzz wala bëgg nga ñu la défendre ci réseaux sociaux da ngay dem jàppale ji waa Pastef mais ñun nag lenn moo ñu tax a toog fii muy vérité suñu nee vérité muy dëgg kan moo ko moom yàlla subhanahu wa taala tey nag muy jour J3 guerre des audios muy audio ma leen wax ni que Mollah Morgan yor na ko kii di Kay Fof yor na ko kii di Maam seen yor na ko képp koo xamante ni yaa ngi bokk Pastef ci panel yi ojo bi mu ngi si sa biir euh, groupe WhatsApp mais ñoom ñëpp ñemew ñu wax ci audio yi ñemew ñu génnee audio yi lu tax parce que arrangé wul kii di seen leader ndaxte def ko incriminer moo tax ñuy xool yeneen ojo chaque jour guignol boobu nga xamante ni c'est un comédien raté un rappeur raté muy dof boobu nga xamante ni moom la ñu tuddee Molla Morgan nekk fii di retaan loo ne ni yàgg na toog di sosal ay doomu aadama di tudd ay tourné ne yor naa ay audio bi mu tuddee Bougane Gueye Dany ba tey jii mënul génnee vidéo euh, audio Bougane Gueye Dany ba mu tuddee Aly Ngouille Ndiaye mënul génnee audio bi nga xamante ni Aly Ngouille mi ngi ci lan moo tax mënu ko génnee ndaxte ci biir audio bi dafa ay kàddu yoo xamante ni dañ leen piégé ku leen piégé nag muy Adji Raby Sarr bi muy wax ak yéen da tudd ay tour di ko cité di xool ndax ñooñu dañuy dem ëllëg ci biir ñooñu si turu ñooñu pour jéem a leen chantage donc moo tax ñemewuñu génnee audio yi amuñu audio yi yoruñu ko li ñu ma yoroon maanaam mooy suñ ko génnee tey mooy arrangé wul Ousmane Sonko lépp loo xamante ni arrangé wul Ousmane Sonko ñoom duñ ko génnee moo tax ci ay live wax lañ toll moo tax ma bëgg ñu déglu ji audio numéro 3 jour ju 3 di Adji Raby Sarr. un jour man ci li nga xamante ne jour boobu noonu xaw ma ko def daa daa def ak man ci ci ginnaaw la sëy ak man ba pare. daanu xoola si ginnaaw ci jacuzzi bi daanu ba pare toog lu yàgg ne ma ñëw taxaw ci paagul yi mu ne ma xam naa ne instant bi ki nga gën a bañ ci àdduna man la ma noppi ne pat fi ma toog parce que ñemewuma ko mu nekk nga bañ na gën a bañ ci àdduna man mais juste bu fekkoon ne samay jabar foofu ni lii la ibaadu la man ibaadu man wax na ma ne ibaadu la moo tax am na yenn yoo xamante seen yoo xam ne ko def ak jabaram

dafa am paquetu espoir euh, paquetu euh, lii nii boo xamante ne imagine toi police Sénégal luñ nekkee luñ def ñoo ko tey wala luñ bëggul def ñoo ko tey mënuñoo jàpp Kya Sow yóbbu ko ne ko boo ñëwatee dañ lay tey à vie. léegi problème bi am ñu xam ne Kya xam na loo xamante ne man mii sax xaw ma ko Kya Sow Sonko daa am ko mu tëral ci fii yi ma xam imagine ba mu defee déclaration sama téléphone barki alxuraanu karim lu mu jot sama dëju yàlla la wax yàlla bu mu am dara man sax euh, loolu dérange mais xoolal ñu may naan mais kii yow mën a fen ay xale jigéen yoo xamante ne bu nekkul woon nga xamante ne bëgguma suñu waa kër xam ne dama doon liggéey maasas ñi ko xam man ragal naa bëgg naa même bu fekkee dañuy def ay témoignages kenn duñu gis ma ne ko mais loolu bu ngeen ko defee dañuy wax ne c'est pas vrai est-ce que xam nga ne son Ousmane Sonko mosul na may dërëm xam nga loolu. après si loolu laa commencé douter ne moom ak sama patron y a quelque chose parce que personnalité Ousmane Sonko bu ñëwee ak ni ma patron bi di exiger ma prendre soin de moom mënu fa ñëw te du fa wàccee xaalis. kon yaakaar naa ni ñoo seggal audio boobu nga xamante ni kii di Adji Raby Sarr mi ngi ko doon nettali kooku ma doon waxal téléphone ba di ko xamal ni que bi mu séqee kii di xaritam boobu di Sidi Mouhamed Mbaye ñoom ci seen bopp ne woon na mi ngi États-Unis kii di Alioune Fall responsable APR moom moo ko làq alors que jamono jooju Alioune Fall mi ngi fii ci Ndakaaru Sidi Ahmed Mbaye nekk fii ci Thiès cité Lamine yaakaar naa ni tey yaakaar beneen fen fenete na kii di Adji Sarr xam na ni dem na ba seen waa ji di Ousmane Sonko da ko sëyee ci ginnaaw ba mu demee bay daanu maanaam mën ni wum di tuur ci jacuzzi bi la ko tuur dem na ba jékki-jékki Ousmane Sonko xool ko xamal ni ko yow jamono ji xam naa ni man nga gën a bañ ci Sénégal ndaxte terrorisé bu ko doon terrorisé yëf jaam yi mu ko doon def sonal na ko ba nga xamante ni sonnoon na Ndeye Khady Ndiaye yëgoon na ko mais Adji Sarr dafa ndax ko daf ko terrorisé woon daf ko nootoon xamal ni que tey man la Sénégal yi jox bopp tey bés boo génnee wax lu toll nii ci man yaakaar naa ne sama militants yi dañuy génn dal ci sa kaw je crois que dafa mel ni loo xamante ni Ousmane Sonko da ko préparé woon ndaxte gis nañu depuis benn wax la ñuy jël xoxotal la menace la danañu taal sa kër danañ la def nangam sangam dem nañu ba ne dañ lay liggéey mystiquement xanaa dañu fàttee yàlla suñu borom yàlla moo tiim ñëpp jël dëggam moom ko te Ousmane Sonko tey su nekkoon ci dëgg je crois yàlla day ànd ak moom faral ko mais doo yor sa ñaari jeeg nga ne ibaadu la nëbb leen sa bopp am sa yëfu caay-caay yoo xamante ni sa yëfu vagabondage yoo xamante ni soo ko bëggee def nga dem ca salon de massage ba jàpp Adji Sarr di ko def ba noppi tey nga war a assumer say responsabilité nangoo ko assumer je crois que ojo numéro 3 baa ngi noonu Molla Morgan am nga ko Kay Fof am nga ko sëriñ bi am nga ko lu ngeen di xaar pour génnee audio bi bés bu ngeen génnee audio bi rek ngeen xam ne yéen ñi nitu dëgg ngeen mais tant que génneew leen audio bi rek xam leen ni que am na lu ngeen di ragal askan bi déglu leen ak xel te bañ a dégloo xol commentaire seen bopp audio bii ngeen dégg